lu yëglekaay bi xëyee tey ma daal di leen koy yëral gannaaw scrutin 24 mars 2024 bi kon nag conseil constitutionnel si boppam nag daal nay dëggal ndam li nga xam nii moom Bassirou Diomaye Faye daal na koy am de tribune yéenekaay bi nañu kon kay Bassirou Diomaye Faye mooy juróomeelu njiiti réew mi fii si réew mu Sénégal de ndax conseil constitutionnel si boppam di ki la daal di koy dëggal de yëglekaay bi dañu xamal nii kon kay prestation de serment bi ndiki talaata la de fële sa international Abdou Diouf bu jam ñaajo kon kay moom njiitu réew yees bi di président Bassirou Diomaye Faye ndar naa amal nag li nga xam nii moom mooy prestation de serment bi de gannaaw nag ba conseil constitutionnel li ki démb nag daal di valider résultat définitif ya yëgle kaay bi li ñu xamal nii kon kay lu toll si ay quinzaine si ay njiiti réew ñu ngi leen di xaarandi de ngir ñu daal di teewee li nga xam nii moom mooy prestation de serment bu njiitu réew mi di Bassirou Diomaye Faye te loolee war a am na talaata bii di ñëw vox populi di ñëw ak ñun nag si présidentielle li nga xam nii conseil constitutionnel si boppam daal nay validé ndiki démb nag tey officialisé élection yi Bassirou Diomaye Faye da yëgle kaay bi ne lii kay daanaka amul benn jiixi jaaxaare aucune contestation n'a été déposé kon koy lii kay dafa leer ndaxte amul kenn si candidat yi koo xam ne si ñoom daal nay déposé nag après recours ngir contester li nga xam nii mooy les résultats te ñoom waa conseil constitutionnel ak seeni juróom sage ñu ngay xamle ni fan la ñuy jot nag prestation de serment bi war am nag le 19 avril bii loolee kay nekk li nga xam ni moom Bassirou Diomaye Faye war na ko amal de waaye gis nga Mamba Grace si di directeur de campagne bu président bu yees bii di Bassirou Diomaye fay daal na yëkkati ay kàddoom nag si Vox Populi yëgle kaay bi ñu xamal nii gis nga moom Mamba Grace yi wax na li ko président Diomaye Faye yóbbante de ndaxte nee na gis nga le 2 avril bii nga xam nii si la war a defee passation de service ak prestation de serment de moom Mamba Grace yóbbante bi nga xam nii président bu yees bi daal na ko koy yóbbante de talam wax mooy bëggul folkoral de bëggul xumbaay te bëggul bu mbaay si le 2 avril bii te moom Bassirou Diomaye Faye nee na 1 lépp lu ñu waroon def si ay xumbaay yeeg jubilé loolu yëpp def nañ ko ginnaaw bi ñu gagné keroog sa 24 mars kon kay le 2 avril soxlawul nag benn mobilisation ngir ñëw di di tàcceeku jubilé di wane xumbaay yeeg mumbaay déedéet te moom sax la ko gënaloon kay mooy gis nga prestation de serment bii lépp mënoon nañ koo def rek sax bii conseil constitutionnel rek ndaxte jarutoon nag ñu koy yóbbu fi nga xam ni sa centre conférence Abdou Diouf ba jam ñaajo moom kay lépp ñu daal di koy dëxëñ benn yoon rek def ko sa conseil constitutionnel ndaxte la ñu waroon jubilé lépp def nañ ndax askanu Sénégal si boppam si loolu lañ leen di xaaree de Mbamba Giraas yi dañu xamal nii gis nga moom Bassirou Diomaye Faye di président bi yes bi la mu xam la leer na rek nee na gis nga askanu senegal bii du leen may toq de lii kay moo waral ñoom bu ñu tëddee mënuñoo nelaw kon kay lépp lu wàllum xumbaay ak mumbaay bésub la 2 avril mu ngay ñaan nag ngir yàlla war a sóori bu ko kenn amal nag ngir ñëw foofu di leen tànqal ndaxte fi mu ne nii liggéey rek ñu jublu de journal Le Regard daal nay dikk ak dogal bi nga xam ni conseil constitutionnel daal na koy jënd ci démb gannaaw sukkandiku yi nga xam ni cour d'appel bu Ndakaaru daal na koy génnee di ki keroog si àllarba gi kon kay conseil constitutionnel daal na koy validé d'office de di ki démb si aljuma ji mu nekk résultat officiel yi nag si élection yi doon tabbu juróomeelu njiiti réew mi fii si Sénégal de kon Bassirou Diomaye Faye daal nay am nag lu toll nag si 54 virgule 28 pour cent téeméer boo si ñoom juróom fukki ak ñeent yi ñoo ko jox kàddu gi de te candidat bi nga xam nii moom mooy candidat président Macky Sall bi di Amadou Ba de daal nay am nag trente cinq virgule soixante dix neuf pour cent téeméer boo jël fanweer ak juróom ñoo ko daal di jox kàddu gi de kon koy lépp daal nay jaar yoon tey tàbbi géej yëkkale kaay bi di ñu xamal nii moom njiitu réew bu yees bi di Bassirou Diomaye Faye daal nay jëkkaloon teg téléphone ak njiitu réew France bii di Emmanuel Macron de yëkkale kaay bi ñaari njiitu réew mi kay ndiki démb daanaka waxtaan nañu yàgg de te moom Emmanuel Macron mu ngay félicité tey élection présidentielle fii si Sénégal waaye nag daal nay félicité bu baax ki nga xam ni moom mooy Bassirou Diomaye Faye si ndam lu rëy li nga xam ni daal na koy am Walf Quotidien di ñëw ñun nag ci élection présidentielle bi nga xam ni moom moo waral Bassirou Diomaye Faye daal di nekk juróomeelu njiiti réew mi Sénégal de yëg yëg kaay bi ne waaye waaye loo si mënta xam jàppal ne gis nga Pastef dafa jaar fu métti laataa mu ñëw si pouvoir bi de itam de ndaxte fu ñu jaar ak yoon bi nga xam ne jël nañ ko méttoon na lool de waaye fi ne nii kay lépp jeex na nag RAS ndaxte kay tey ñoom ñoo daal di réew mi di les échos yéene kaay di ñu indil nag ci waxtu yu mujj yi sa conseil supérieur de la ki nga xam ni moom mooy Abdoulaye Ndiaye de mi nga xam ni daanaka moo invalidé woon nag Ousmane Sonko te daal di koy rendre nag inéligible kon kay moom njiiti réew mi Macky Sall la ndaxte yëglekaay bi dañu xamal nii kon kay moom Abdoulaye Ndiaye fi mu ne nii moom mooy premier président nag bu cour suprême waaye yëglekaay bi dañu xamal ni moom jiiti réew Macky Sall yamu sax ndaxte moom xam ne ne ay bés yu néew rek moo ko dese nag ngir mu daal di abale si bopp réew mu Sénégal waaye moom jiiti réew Macky Sall boo bëggee dégg kay fi mu ne nii mu ngay sargal jigéen ñi de ndax gannaaw ba mu tabbee nag ki nga xam ni mooy Abdoulaye Ndiaye daal nay tabaat jigéen ñi de yëglekaay bi dañu xamal nii Awa Gueye ak Dieye Leye Seck daal nañ leen di yóbbu sax au conseil des collectivités territoriales de Fatou Diouf Rama Mack Ndiaye ngoom moom mooy laa law ba du président de Ndeye Mat ñu daal di leen di nommé nag sa conseil économique social et environnemental yëkkakaay bi dañoo xamal nii ab surprise dëgg nag moo am dikki démb ndax moom jiiti réew mi Macky Sall daal nay nommé nag ki nga xam ni moom mooy Fou Malade mu teewal artistes yi nag béy di aañ moo di giloo Mademba Seck sa conseil économique social et environnemental las quotidien dañoo xamal nii gis nga magistrat yi si boppam ñoom ñoo daal di dàq nag nomination bi nga xam ni moom jiiti réew mi Macky Sall daal na koy def nag tey tabbu nag

yëkkilekaay bi ñu xamal ni moom Macky saal si boppam moo daal di tabb nag ki nga xam ni moom mooy juge Abdoulaye Ndiaye Ndiaye Jaata Ndiaye El Bourou Ndiaye daal di koy tabb nag premier président de la cour suprême te gis nga kii di Amadou Seydi moo nekk procureur du pôle judiciaire financier surtout quotidien nag di ñëw ak ñun si Guy mari Sagna bi nga xam ni daanaka mu ngay avertir si nomination yi nga xam nii moom njiiti réew Macky Sall mu ngi koy def de ndaxte moom Guy Marius Sagna lu mu xam le mooy gis nga lii yëpp ay caaxaan la ah baax na rek kon nag bu yeboo moom njiiti réew Macky Sall na def lu ko neex tey xam ni ñetti fan kott moo ko fi yi lan lay nominé rek fi mu ne nii direct news ne ak loo si mënta dégg jàppal ne moom jiiti réew Macky Sall mu ngay nominé rek si waxtu yu mujj yi nag yëkkale kaay bi ne bay jeexal nag te ñetti fan kott moo ko fi desee muy daal di amal ay nomination boo demee sa HCCT ak sa CSE daanaka lañ ay nit nga mel ni tulleeg man de yëkkale kaay bi ne lu si doy waar kay mooy ay militants à la première heure ñoom kay dañu leen nommé à la dernière heure rek ñoo xam ne dañoo yàgg si parti bi nag ñu bàyyi ba waxtu bi di daal jeex safetaan nag lañ leen daal di nomee nag lii kay mooy Aly Kala ji yëkkale kaay bi ne lan moo waral kay moom njiiti réew Macky Sall fi mu ne nii di daal di barar tey nomee ñu bëri si ñoom lii kay Aly Kala la de Macky Sall si boppam ni ki dem daal nay tabb nag magistrat Abdoulaye Ndiaye premier président de la cour suprême kon kay moom Abdoulaye Ndiaye daal nay wuutu nag ki nga xam nii moom mooy Sira Ali Ba sa cour suprême Guy Marius Sagna daal nay def ay révélation yu doy waar direct news ne ko boo bëggee dégg dëgg moom Guy Marius Sagna kay jëm ci mbirum indemnité responsable bi de RTS di Racine Talla ndax mu ngi naan indemnisation boobu kay mu ngay tukki c'est cent cinquante mille francs CFA jàpp huit cent cinquante mille francs CFA waaye gis nga nag pour ñi nga xam ni ñoom ñooy chef département yi jàppal na ñoom seen i bos mu ngay jugee sa cent mille daal di dem rek sa deux cent cinquante mille francs te gis nga lu jëm nag sa contrat CDI ba te jàpp leen ne contrat bu CDI daal na koy signé de moom directeur général bu ASPD kon kay li yëpp mu nekk ay mbir yoo xam ni Bassirou Diomaye Faye moo ko xamal la de vingt quatre rek yëgle kaay bi li ñëw ak nag si ñaari njiiti réew yi di président

nekk centre conférence bu Abdou Diouf bu jam ñaa joo waaye que daanaka Bassirou Diomaye Faye moom loolu gënalu ko de enquête quotidien di ñëw ak ñun nag si Khalifa Ababacar Sall ak parti bi di taxaw Sénégal da yëgle kaay bi di def ab jànkan nag ab taxaw seetlu si avenir u Khalifa Ababacar Sall ak parti bi di taxaw Sénégal da ndaxte boo moytuwulee fii ak ay weer wala ay at boo moytuwulee dinañu dem retraite de ndaxte moom Khalifa Ababacar Sall 1,56 pour cent la am nag si élection présidentielle yi téeméer boo jël benn ak genn wàll daanaka kenn kese kay moo wot ki nga xam ne moom mooy Khalifa Ababacar Sall lii moo yéema te loo si xamul moom Khalifa Ababacar Sall daanaka dafa jege dem retraite de waaye li si doy waar kay mooy éligibilité bu Barthélémy Dias ba tey coolo leen ndaxte bañ ko condamné si l'affaire Ndiaga Diouf mu daal di ñàkk rek li nga xam ne mooy éligibilité am kon kay bu yeesoo Khalifa Ababacar Sall jamono ji si biir parti bi kan kay moo war a daal di incarner leadership bi li kay ab laaj bu ñuy samp rek te loo si xamul nag parti bi si boppam dafa a dem si ay future échéances lu si mel ni législative yi élection ñu war a tabaat député yi te jamono ji ñuy wax taxaw Sénégal amul candidat bu taxaw de l'observateur di ñëw ak Ousmane Yara ak saw sa sapale de la République rek coow li nag daal di mel ni tulleeg man la jàppal Ousmane Yara indil Omar Sow rek yëkkale kaay bi ñu xamal nii ndiki démb kay daanaka rek lañ lañ lépp de waaye gis nga si xamul moom Omar Sow yëkkati na nee na Ousmane Yara si boppam moo ko daal di saaga yëkkati ay kàddu yu ñaaw daal di koy teg si ndodd waaye gis nga bàyyi ko mu jaal si la ko daal di boxoo nekk door ko gauche ak droit rek sa waay wadd nag lii Omar Sow moo ñu ko xamal de yëkkale kaay bi di ñu xamal nii sa duwaanu Kolda la xewee de ñaari tout tànk nag ay xale yu ndaw nday saan kenn ki am benn at kenn ki am ñeenti at te ñoom ñaar ñëpp loo si xamul ay góor lañ de di daw na yaram ñoom ñaar ñëpp nag la ñu fekk ñu daal di faat ñàkk seen bakkan nag si ab benn oto waaye gis nga boo bëggee dégg dëgg gars yi ubbi nañ ab enquête de xool ba xam ndax ñaari xale yooyu lan moo leen jot a faat ceetëtët lii doy na waar ak weeri koor bii shahru ramadan ñu daal di faat xale yii doy na waar de ak lu si mënti am yàlla ñu yàlla defal jàmm man na leen ñaanal nag week-end ba altine bii di ñëw incha allah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 Sénégal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps